gannaaw ba ñu dundee ay mettit yu bare bare ay brimade ay violation du code du travail ay violation de la convention interprofessionnelle seen direction yi duñu leen ko nangul ci loolu la ñu daje ne dañuy taxawal benn syndicat te ku taxawal syndicat c'est pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs aujourd'hui gis nañu ne que liggéeykatu euh, autoroute à péage Touba il a tout Touba jël nañu décision arrêté difficulté yi ñu doon dund te ñoo ngi invité direction autoroute tout Touba désormais mu respecté leen xam ne ay liggéeykat lañu caaxaan jeex na à partir de ce jour dialogue la ñuy prôné parce que tooñ yi ñu leen tooñ yàgg dialogue boobu nuy prôné ci la ñuy invité direction bi pour ñu xam ne ni que tooñ moom dootuñ ko bayyi fenn jóg nañu pour xeex pour défendre seeni intérêt kon na ci nga xëy ñu signé le contrat di la utiliser dénk la beneen société boo xamante nii liggéey la boo xamante waruñu jël prestation service ñu dem externaliser fonction boobu mais du yoon et code du travail daf ko tere am na liggéey yoo xamante ni yow société bi bu liggéey boobu bu amul ci biir kër gi société bi du dund nga dem jël liggéey boobu dénk ko keneen kooku prestataire de service ñëw di liggéey loo nit c'est c'est c'est c'est de l'exploitation c'est une forme de détournement des des des avantages des travailleurs parce que boo jëlee prestataire bi dootoo ko fay prime de transport doivent ko fay prime d'ancienneté dootoo ko fay congé loolu la ñu ne na dakk bu ko defee nag ñun en tout cas CNTS jël nañu décision accompagner ces travailleurs là et jour et nuit on sera à leur côté lépp loo xamante ni def nañ leen ko du yoon dañ ci taxaw te am nañ ci yu faju ci fan yi rek parce que am nañ ñu dàqoon arbitrairement mais delloon nañ leen seen place